Euh, je pense que tout le monde le connaît actuellement ni parce que euh, ñepp xam nañ que né moy Rak Leroy Sané doomu Souleymane Sané donc pour man c'est un excellent jour bo xamantene euh bima ma liiree et tout ça fi mu jaar donc euh, ñuy wax que né c'est un jour bo xamantene ne tey jii moom moo football sax frère am di Leroy Sané parce que euh, dribbleur le provocateur le il est percutant donc man na indi surnombre ci kaw attaquant bo xamantene da fay éliminer je trouve que c'est un excellent jour donc motax tax tey jii damay def ci mom vidéo parce que moom def naa ci moom beaucoup de vidéos ay découvertes donc bu ngeen duggee ci seen bien ko gis mais tey vidéo may def nii dafa spécial pourquoi ma wax loolu parce que euh, gis ngeen li ma bind mooy que pourquoi euh, Sidi Sané ne jouera jamais pour l'équipe nationale du Sénégal donc loolu ngeen gis euh, ci vidéo bi donc li tax ma wax ko nag bala ma ciy ñëw damay leen di ñaan ngeen seetaan euh, interview bi nga xamante ne euh, Baye Leroy Sané ak Sidi Sané mi waxoon na ko muy Souleymane euh, Sané donc dama leen di bàyyi ngeen seetaan ko pare ñuy soog a ñëw ci yaatal gi. pourquoi Leroy Sané ne joue pas aujourd'hui pour les Lions de la Teranga ouais, Pourquoi le Lyon ne joue pas pour le, le Lion de Teranga C'est très facile. Le Sénégal n'a jamais fait un dommage. Les Sénégalais savaient très bien que j'avais des, enfants qui jouaient ici en Europe, mais ils ne m'ont jamais appelé. Donc la Fédération sénégalaise de football, malgré, que le Sani a joué des matchs de la Ligue des Champions, ils n'ont jamais euh, demandé que le roi Sani vienne jouer au Sénégal. Ça, c'est une information, ça. Ça, c'est une information. S'il y a quelqu'un qui dit qu'ils ont parlé avec moi ou ils ont parlé avec mon fils, c'est faux. Ah, le Sénégal n'a jamais parlé avec moi, la fédération n'a jamais parlé avec moi, que ce soit les dirigeants de la fédération, que ce soit le président de la fédération, que ce soit le manager de la fédération, que ce soit l'entraîneur de la fédération, la personne qui a parlé avec mon fils, au moins de parler. Euh, officiellement, au moins officiellement. Ah, oui, officiellement. À la fin, c'est toujours lui qui décide. Hein, mais au moins, j'aurais pu le conseiller en disant, écoute, le Sénégal, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La France, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'Allemagne, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, les, les Sénégalais n'ont pas fait. Alors bon, c'est pour ça que le jeune homme joué pour l'Allemagne. donc je pense que ne déglu dit li nga xamante ne Souleymane Sané wax na ko ci ay doomam que ne fédération bi eh, mësuñoo wax ak mom donc lool kaw la roi Sané la won donc euh, ne fédération bi mësuñu ko wax ci doomam mësuñu muy coach bi également muy ñuy liggéey ci biir fédération bi et tout ça mësuñu ko contacter ngir donc pour Leroy Sané mën a jouer ci Sénégal donc aujourd'hui moo tax ñu gis Leroy Sané di jouer fële ci Allemagne donc lii nag mooy li nga xamante ne mooy preuve buy wax que ni Euh, Sidi Sané muy rek roi le frère de Leroy Leroy Sané bi nga actuellement mi ngi joué qui ci équipe A 04 donc li motax du ci équipe nationale bu Sénégal parce que ah, ah euh, ni ni ni ni en lancé donc du Massa jouer ci Sénégal féké ni lay fédération bi di ak donc du massa parce que féké xam nga Souleymane Sade mom ancien international sénégalais mu def fi lu ne nga xam ne exactement mi ngi joué mi ngi joué Ligue des champions booba roi Sané mi ngi Ligue des champions di def ay ay ay performances yu am solo woowoo ko contacté woo baayam te nga xam ne apporté mën na laa apporter dara sa équipe ko fekkee kooku aujourd'hui mën a Sané il faut dire la la vérité il faut que fédération bi ñu bouger il faut que fédération bi ñu bouger pour ñu mën a yóbbu suñu football fu sori parce que du ma leen ko nëbbu tey jii boo bëggee jouer coupe du monde il faut nga am ay joueurs yoo xamante ils sont le niveau dañuy am niveau bi dañuy jouer seen i si seen club gis nañ ko la preuve mooy coupe du monde bi jeex parce que coupe du monde c'est le concert des grandes nations boo fa demee dafay metti donc euh, en tout cas qui euh, di Sidi c'est un excellent joueur depuis tout petit mini ngi qui ci euh, équipe catégorie petite catégorie bu 04 cette saison qui équipe réserve bi premier jeu. même 11 mars il marqué 3 buts. donc saison bien passée. Euh, jeune 10 mars marqué 6 billes. donc c'est un joueur redoutable c'est un joueur pour il est doué techniquement il est bien donc euh, il est percutant dribbleur comme ni ma c'est un phénomène pour moi en tout cas fédération il faut nous bouger euh, li interview bi Souleymane Sané defoon wax que la fédération musto euh, le roi sa musko contacter ngir wax ko ci ay dom li c'est di du Sénégal parce que Asserine ce ni ñuy liggéey ni donc du pour man mais nag léegi nag peut-être peut-être que euh, affaire yi changé parce que euh, euh, interview interview bi il y a six ans de cela donc peut-être que yëf yi changé peut-être que instant bi contacté nañ ko ci Sidi Souané en tout cas on espère que ne dinañ ko ci contacter parce que c'est un jour talentueux c'est un excellent jour comme noonu leen ko waxee kon mbokk yi laa leen dina wax weneen di like weneen di commenter caa ngeen jëf